bismillahi ci tudd tur yàlla laay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewal xéewali di ji arrahimi yàlla ki aji xéewali xéewali si naa ngi tàmbalee tur yàlla mi nga xam ne moo wéram ñëpp ci àdduna ba wéramaale sax ñu ko weddee ko mooy tey jag na yërmaaneem ci àllaaxira ñu ko gëmoon rek loolu mooy bismillahi rahmaani rahim tàmbalee tur yàlla mi nga xam ne mooy xéewali xéewali yaatu yi daj ñëpp di xéewali xéewali nga xam ne dafa sew yem ci ñenn ñi wasall yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina sunu sang wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam moo di muhammad wa ala alihi ak ci ñeneen wa sahbi ak ay sahabaam wasallamatim dool leen wóolu tasliman dolli wóolu yàlla yàlla dolli teraanga sunu sang sunu kilifa Muhammad ak mbokkam yi ko gëmoon loolu mooy ñoom ak i saxaabaam saxaaba mooy képp ku tasee moom te gëm ko rek te dee ci gëm nga ñëpp yàlla yàlla dolli leen teraanga ak jàmm maxaaliqun niiraani lii mooy xom bi sawara ya wa mafatihul jinnaani tay caabi yi àjjana ya dafa tudde téere bi xom bi yu tëj safara tay caabi yu tijji àjjana alhamdu xeeti cant yëpp lil ilahi ñeel na buur bi rabbil alamina kay borom mbindéef yi tuma salaatu topp dolli jëral wasalaamu ak dolli wóolu kulla xiinin ci bépp waxtu xalal lëfi yàlla nekk ci ka nga xam ne xatama mottali na kulla nabi iina mboolem yonante yi wa amata mu jiite kulla mursalin képp ku ñu yónni min diine ami ba bàyyi ko ci borom xéewal ya ñu tàmbalee sant yàlla mu sàkk mbindéef yi te koy ñaan mu dolli salaatu salaamu ki nga xam ne moo mujj ci yonante yi moo leen mottali di seen ilimaan ñoom ñëpp sayidina mooy sunu sang muhammadin muhammad wal ali ak ñooñ ña wa sahbi ak ay saxaabaam xibaadi dil jëlaali ña di jaami boroom màgg ga dafa sant sunu boroom daal ci teg julli ci yonante bi neel na yàlla dolli teraanga ak jàmm yonante bi ak ñeneen ñi ak saxaabaam yi nga xam ne ñoom ñëpp dañu doon jéem a matale àqi njaam xëy na sax jaam matale àqi borom bi jafe ni waaye loolu nañ ci jéem lañu man ba yàlla gërëm leen hada jàppal lii hada buñ ko firee jàppal lii day fekk muy teqale yaari wax xaw mel ni nga ne woon amma baadu wa innama naka la nga xam ne xale yi nekkoon na ca al muqtafa ka ñu xeñtu ixtafa nëbb na xalal naas ci nit ñi li kasaratil jahli ngir bari réer ga nee na gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi li mu leen njëkk a ñëwal mooy la yonante bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon daanaka xaw naa raaf kenn mënatu koo xàmmeeti ndax rek réer gu ëpp gi nga xam ne moom la nit ñi réer tax na rek daanaka lam nekkoon muy sunnaam xaw naa raaf mooy salla yàlla doon tedd nga xale ci yonante bi man yàlla mi nga xam ne jëlaahu feeñal na ko mun taqan bi muy ko ñu tànn xudduwat amoon tey roy tey fa képp koo xam ne lam yëkku nekkut min ahli shaqaa di bokk ci ñoom texee di waaw loolu dafa doy ci yonante bi am na ko yàlla doyul teraanga yàlla mi nga xam ne moo ko feeñal mu roy tey fa képp ku nar a texee di maanaam mu roy tey fa képp ku nar a texe rek yàlla mi feeñal yonante bi mu roy tey fa képp ku nar a texe am na ko yàlla dolli salaatu wa tabi xat-xaate topp na ko it siiratu saxaabati doxaliinu saxaaba ya wala jaar jaari saxaaba ya dawul hudaa ña di roñu njub wu nuuri ak leer ba bul ijaabati ànd ak nangulu ko yàlla ijaabati bi firi ak wuyu rek nangulu ko yàlla mooy dañ caa boole woon yàlla may leen ijaaba may leen ak nangul gum leen nangul ba tey nee na yonante bi di nga ne lam nekkoon daanaka xaw naa raaf xamatuñ ko ba tey mën nga ne saxaaba yi itam fa ñu jaaroon ak seeni jaar jaar yu rafet yëpp daanaka moom it xaw naa làqu ñu bari xamatuñ ko su ma talaaxuma topp topp na leen ñoom ñaar xoddu siyooxi njubug sëriñ sa du tuqaa ñetti waroom ragal yàlla wala xiim ak xam-xam wala rusuuxi ak sax ci xam-xam ba tey nee na mën nga ne gannaaw bi nga ne li yonante bi nekkoon raaf na ñu bari xamatuñ ko la saxaaba ya nekkoon ñu bari xamatuñ ko mën nga ne sëriñ su baax si toppoon ci gannaaw saxaaba ya ragaloon yàlla te xeemtu yonante bi ak saxaaba ya itam ñoom it daanaka seen yoon wa ump nañu bari bari maanaam ba tey ñu bari xamatuñ ba tey ñoom seeni jaar jaar ñoom sëriñ suus daanaka raaf na moom it man talaba ku sàkku alwusa wala àgg lil jël yi li jëm ci aji màgg ji fal yaxtasim la jàppandu bi sunnati rasuli ci sunnas yonante bi bi an yu laasima ci mu taqoo mu teexan aji topp laa yoomi lu kon du jeng fi zahirin ci lu feeñ wa baatin ak yu nëbbu du jeng ani sabil walis yoon wa ani sabil yi mi ngi dellu ci laa yoomi lu yéen ku bëgg a àgg ci borom bi da ngay jàppandu ci sunna te fekk koo xam ne sëriñ la bu mat bu sax ci topp yàlla xam lu jàng ci zahir lu jàng ci baatin nga ànd ak moom ndax mu wommat la ci yoon wa mu nekk maanaam daal da ngay jàpp ci sunna te fekk koo xam ne aw na ci yoon wa ba kumpaam denc bu ko defee mu wommat la jàng nga xam ne yaquulu dana ko wommat bil xilmi ci xam-xam wa bil ibaadati ak ci jaamu yàlla kama yu rabbihi ni ki ma koy yare ni ki ma koy tërbiyaa bi tarkil aadati ci bàyyi aada te day nekk sëriñ boo xam ne dana yombat ci xam-xam ak jaamu yàlla yar la itam ci bàyyi aada aada mooy maanaam li mu wax ne bàyyi aada aada mooy li nga xam ne moom la nit kese yi rek aada woo nga xam ne waxtu leen neexee lekk waxtu leen neexee naan di jaxasoo nu mu leen neexee di nelaw nu mu leen neexee xam ne nelaw sax dañ koy waajal lu mel noonu mooy aada maanaam képp koo xam ne wuti yàlla xeeti aada yooyu da ci yem ci faj lor dong nga xam ne balaa lekk day xiif te bu fajee loram bàyyi balaa naan day fekk mu aajowoo naan mar te bu fajee loram bàyyi bu dee nelaw lu waajal ngir nelaw day bàyyi ba nelaw dab ko rek mu def ca lu faj loram daal di bàyyi mbirum jaxasoo itam bépp jaxasoo boo xam ne amul njëriñ da koy bàyyi néewul ab jaxasoo néewul ak lekkam néewul ay nelawam néewul ak naanam ba ba muy am yàlla muy wut su amee yàlla muy wut nag bu gisatul li muy yàlla man ngay def yooyu yëpp delluwaat ci aada ja te du tax mu yàqal ko dara waaye li feeg nag mu ngi wut te amagul moom faaw mu bërinteeg yooyu le maanaam baril lekk wala baril naan wala baril jaxasoo mbaa baril nelaw ba keroog muy am nag li muy wut fukk lu man képp koo xam ne intasa la boru na xam lu wusoolihi ci njëkk àggam nga wala mu rabbihi te tarbiyewu ko mooy te yaru ko te yaru ko rek mu rabbin sëriñ bi aji yar xat kamula bopp mat na fa innahu naka kookee yaxuubu dana xuus fi baxari radaa ci géejug alkande wala ye jiw te du dikk min hu ci moom shay'un dara abadan mukk nee na ku teel a beru te fekk àggagoo soo tuut dana am gàllankoor bu la gàllankoor nga defee ne àgg na àgg nga te fekk na àggoo ndax la muy ci yoon yi dafa bari lay feeñu nga defee ne àgg nga te àggoo day bari nga defee nag nee na képp koo xam ne teel ngaa baru xaat te doonoo ci sëriñ bu mat sëriñ mu teg la ci yoon ba ba sa mbir weesoo yàqu mu ne boo tut kon yàqu lu weesu but ci yow li annahu ngir naka moom yàqulu duhoo dana koo mat asheytaanu seytaane wa nafsu ak bakkan wal hawa ak bànneex kama abaanoo naka ñu birale maanaam ku teelu baru te baru jotuwu ci moom seytaane ak bakkanam ak bànneexam yàqal ko day yomb lool te du ko yëkk wal yaalamun na xam kullu zakiyin jëpp aji ñëw wa balidin ak aji gàtt xel di àndal na si naka ka nga xam ne yu xaalifu dana jiyoonteeg alxaqa dëgg faridun ku ñu dàq lay doon waaw nee na na ñëpp maase ci xam ne képp koo xam ne jub nga tegg yoon wa aw ca dëgg ga rek dañ lay dàq waaye doo àgg fa nga jëm te wal xàqu dëgg ga bat ul xab ji mooy jëkkeeg jaam ba bi tawxiid yi ci xam-xamu tawxiid wal fiqi ak fiq xan tasawuf ni wal tasawuf mujjii din koy aji rafetal boo ko defee mujjii din wala majjii din koy aji tedd mun taxiidan mbir mu muy aji soobu madhabu ahli sunnati yoonu moom sunna maxal jamaaxati ànd ak mbooloo ma wa tilka te loolee ak jumatu mooy pakk ba mu ne pakk ba mooy kaaraange la rek lañ jublu nee na li yoon dëgg li yoon dëgg yi mooy da ngay njëkkee xam-xamu tawxiid ba am ci yóbbal jëru xuus ba da cee topp lay yu bari yi nga xam ne day sànq sa dund waaye na nga am yóbbal ji tawxiid fiq itam noonu jëru bay jàng masala yi nga xamee ne moom daanaka te ngay dund ba faatu doo ko gis dañ koy toll rek na xëy na maamam du am su ko defee tasawuf tam nga fexe ba am ci ab yóbbal yett yi moom mooy xam-xamu diine ku nekk nga am ci ab yóbbal nag su ko defee nag te lépp nag nga ànd ak waa sunna maanaam su ma waxee sa pas-pas ak sa doxin yëpp nga dëppale ko sunna ànd ak ñi nga xam ñoo nekk ci yoonu sunna waaw nee na ku def loolu daal xamal ne yaa ngi ci yoon wa te am nga kaaraange loo xam ne bu yàlla dimbalee da nga àgg fasaarihoo kon na ngeen gaawantu lil xilmi jëm ci xam-xam ajima xëy na mbir mi mboole seen li wet xaasi dina mbir ngeen di way jublu li wet si dil jalaali ñëw jëmmi borom màgg ga xabla tasaddure ci njëkk jiitu wal infiraadi ak wéetoo te nafsi ci bakkan wal at baax yi ak way topp fii tamaadin ci sax nee na bala ngeen a jiitu kenn di topp ci yéen ngeen di farek seen bopp ak seen i dongo ah déet loolu nee na bu ngeen ko njëkkee da ngeen ko loolu des ko mujj waaye des ko njëkkee da ngeen di njëkkantu gaawantu ba xam-xam gu wër xam ngoo xam ne yàlla doo nga tax dañ koy wut ko defee nag nga ànd ak koo xam ne dana la teete ba nga mën a beru boobu beru waaye nee na da ngeen moytoo beru ak seen bopp ak seen donga te fekk rek beru jotagut loolu moom day indi ak yàq idi ngir bulumaatu bidxati ci qaadin lëndëm lëndëm mi bidaayi pas-pas te kuf fu danañu fekk anwaarat tibaaxil haadi leeri topp su nës aji jubal ji yenn topp bidaa dafa lëndëm këriis topp sunna bari ay leer lool mais nag boo xasee topp bidaa rek lëndëm bidaa yi dalay gàllankoor ba doo am leeru topp sunna waaw maanaam ni ngay fexe rek topp sunna te moytu bidaa bidaa moom boo xasee topp rek rawante na bu dee ci wàllu pas-pas moo ci raw doo daal di fekk leer yi nga xam ne moom war a am ci boo toppoon sunna ba tax daal di moytu lépp luy xeetu bi daal rawante na ci pas-pas loolu moom mënta ñàkk aman naxaakumoo koo xam ne tere na leen amit temps lu walis xamulu fa nax yixoo kon tereem nga yan tam yi dana askanu ilat balaali jëm ci réer waaw nee na ku leen di aaye jàng ba xam lu baax te sax ca ak xamee lu bon ba mën koo daw ku leen di aaye loolu nee na loolu mu ngi leen di woo jëme ci cànkute ndax bu xamul lu baax ba mën koo def xàmme lu bon ba mën koo daw rek cànkute dikk na isi ngir ku mu mën képp koo xam ne mën a xatere na mën a taaluma ci xamlu fii jël zamaani ci jële jamono fa ilhoo naka gookee daa woote na li biddaxatin jëm ci biddaa shanihatin bi aji ñaaw isi ngir alxamalu jëf in lam yëkkun dem nekkut bil xilmi di ànd ko xam shaabahu daal koy rax xalalun ak yàqu yenn jamono ji nga xam ne nee na la lu yonante bi alayhi salaam nekkoon raafu na ñu bari xamatuñ ko ñi saxaaba yi nekkoon noonu di kilifa yu baax yi ñu borom sëriñ si nekkoon noonu nee na yooyu jamono kon bu fekkee li nga gisee ci ngay roy noonu daal di lay lu topp ci mbooloo mu yooyu rek waaw neen loolu ku ko def moom noonu day waar moo tax mu ne jamono ji ku ci aaye jàng ba xàmmee lu baax ba mën koo topp ak xàmmee lu bon mën koo daw kuy aaye loolu yaa ngi nit jëme leen ci biddaa bu ñaaw ñaaw ndax jëf moom bu ci ànd ku xam rek jëf bu am ko xam rek jëf ji du baax ceeb bu sax la muy yàq mu yëpp la muy defar falayil mu xam-xam wala xamul ak jëf ji yiw jëw xelaani yaari cosaan lañu wala yaari wurus lañu yeej lu baax lañu danañu ñoddee li xayra yit daar yi ni jëm ci yaari yii yaari kër yi nee na yaari yi moom mën nga ne lu waaye am ci lu baax rek moo ko may mooy xam lu baax te di ko def ngir yàlla xam safaan ba te di ko moytu ngir yàlla yooyu waaye xam lu baax di ko def ak xam safaan ba te di ko moytu te lépp yàlla tax wa ashraful aslayni gën jaa tedd yaari cosaan yi xilmun moo di xam-xam xuddi moom bët jiitaleef na ko kama ataani ki lu dikkee bii ci loolu xadisun xadis xat sama bu yëkkati ko na ah nee na gannaaw buñ teggee xam-xam ak jëf ne ñoom ñaar ci la ñuy amee yëpp yu àdduna alaxira mu ne nag xam-xam moo gën a tedd ndax xam-xam bu amut jëf du am nit nga xamee ne fondement bu amut tabax du am rek xam gi it noonu la mel bu xam gi amut jëf du am kon nag ndegam moom mooy jiitu faaw lee doon tegu ci kawam loolu moo tax moo gën a tedd mooy indi ngir ku loo xam ne liñ jëpp aji jëf bilaa xëy na mu ci dul ab xam-xam wi daal ba def na ko gis tasax yi fu jëfam ja mis bi xabaayin képp ab pënd la misiri bépp ñu saareef na ko ah nee na kuy jéem a jëf te fekk na xamut jëfum pënd rek lay doon mooy jëf ja lu am solo mu yëpp wut la muy yàq mu yëpp la muy defar wa man xawaa ku làq it xilman xam-xam wala sa yaamalu te du jëfe bi ci xam-xam ba fa innahu naka kookee ximaarum képp am mbaam la yaxmilu moom dafa saf ay téere ba tey nee na xamu kese gi doyut ndax boo xamee kese mi ngi mel ne nga fondement sa tabax da nga yem ci xam nga boo jaayul tabax ba am foo dugg fondement kese amul njëriñ mooy faaw day aajowoo li nga xam ci lu baax nga di ko def ngir yàlla li nga xam ci safaanam nga di ko moytu ngir yàlla waaw boo ko defee rek boole nga yaar yëpp waaye ku xam ba noppi jëfee ko day mel ne mbaam mu ñu saf ay tiir yi nga xam ne yem na lu am njëriñ sonn na ca waaye taxul mu jëriñu ca taxal na moo na ngeen xam lu alxilma xam-xam li wacc illaahi ngir jëm yàlla duunal munaafasati ci lu dul ak appalante wa tabaahi ak puukarewante ene bu ngeen dee jàng xam-xam na ngeen koy jàng de ngir yàlla bu ngeen ko def ngir ne diw du ma ëppale mbaa maa koy ëppale ba puukarewu ko mbaa yi demee noonu daal ëpp naa def laa taqsudu bu leen di jublu istimaalatal baraaya sàkkoo jengal mbindeef yi lakkum jëm ci yéen wala xalsakum du caageenu seen làq al hadaaya ay addiya ne bu leen jàng xam-xam ndax nit ñi dëgmal si leen topp leen mbaa ñëw leen yëpp alali àdduna ay addiya ak demee noonu loolu dong bu leen tax a jàng fa man taxallama ku xam lu li maa ngir li nga xam ne xas dukkira tuddeef na ko fa saxyuhu kon jëfam jaraa daw na fii haddimi diinihi ci màbbu diineem wa baaxate jaay na axiratahu alaxiraam bi duniyaa jëndi àdduna wa baaxate sànku saa yuhu jëfam wa xaabate mu sooy saa yan ci jëf dana koo xam day jàng xam-xam waaye ngir yàlla taxut ngir yi ñu wax rek alali àdduna mbaa daraja mbaa mbooloo wursi ko rek moo tax ni kon mu ngi màbbu diineem te yëgu ko te mu ngi fekk alaxiraam am njëriñ mu koy jaay ñu koy faye àdduna mi nga xam ne du yàgg dara te amul njëriñ bu ko defee nee na rek soo tuut te daal di perte bu ëllëgee ubbi ngir safxatun paspasum njaay xadir tujaaxa bopp yaakaaroon na ko xasirat perte la wa bay wuxóoti am njaayam tijaaratun am yaxantu la maara bi xat moom tonu wut yena koo xam ne jaay na alaxiraam jee jënd ko addunaam ji mooy xam rek ngir adduna kese ne kooku bu fekkee da doon jaay nga xam ne nax nañ ko bu doon yaxantu nga xam ne yaxantu ma tonu wut wa am na man ak naka ka nga xam ne àllamoo jàngaloon na ko xatkaana nekk na ñi awaanam di dimbaliwaat loxo ñeel ko xalaa xisiyaan yi ca moyam ga nga xam ne fa huwa moom musharikun aji bokkaale la loxo ñeel ko fi duru ca lor ja kama ni ki nga xam ne yëg yëfu dana jaay ak say fa jaasi ahlul makri ñoom taxe wala ñoom ñu war waaye ne na kiy jàng te yàlla taxut boo ko jàngalee tey mel ne kon da ngay bokk ak moom bakkaar ba mel ne ku fekkoon ko def loxoor nga jaay ko jaasi mbaa jumtukaay ba nga koy defee rek na ngay amee ci bakkaar ba noonu ngay amee ci bakkaaru kooku toltaq su dee na ngeen jublu arbaxatan yent ci ndub ci daa taxal lu mën fa tàmbali njàng li koy tëgoosoo ngir ngeen tuufu bil xudaa ci jub nee na boo dee di ko tàmbalee jàng am na yent yoo xam ne mu ngay fas ci sa njàng mi awaluha aji jëkk seen alxuruuju moo di ak génn min dalaalin ci réer bi ci jëkk mooy na nga fas yéene génn ci cànkute waxtaani ñaareel bi nafu xalqi bil jalaali mooy jëriñ mbindeef yi borom màgg gi ñaareel bi mooy nga fas yéene jëriñ mbindeefi yàlla yi ci xam-xam bi nga xam ne moom ngay wut bis boo ko amee jëriñ ci mbindeefi yàlla yi taalifaha aj ñetteel seen al ihyaaw mooy dundal ga lil xuloo mi ñeel xam-xam ya te ko ñetteel mooy jàng gi ngay jàng nga fas yéene ci dundal xam-xam ndax xam nga doonte doo ko jàngale waat itam xam gi nga koy xam rek ak dundal lay doon ndax bu fekkee jàngoo ko keneen jàngoo ko te daal di gën a dee gën a sàngu wa raajohu ñeenteel bi alxamalu mooy jëfe bil maalum ci lañu xam ko ñeenteel na mooy nga fas yéene loo xam rek jëfe ko bu dee lu ñu santaane jëfe nga jëfe bu dee lu ñu santaane bàyyi nga bàyyi te lu mu ci mën doon muy jàpp gi bàyyi gi yàlla rek tax waaw yent yooyu kon ku doo tàmbalee jàng ku bëgg a tàmbalee jàng moom ngay fas ci njàng ma li sayit yi ñeel na sama sang zarwooqa te mooy zarwooq baytaan yaari bayit xuma yoo xam ne ñoom ñaar yu rabbiyaani danañu yar man ka nga xam ne xawaa làq na mooy am na rek tafa xuman ak dégg yéen sëñ bi wax zaruuq am na ñaari bay di wax ci ko wut xam-xam yoo xam ne ku ko dégg te am dara ci dégg rek nan la war a waar ba nga jéem a seetlu ci sa jàng ak ci sa xam-xam daa wax ne man fala da ko sàkku am yi ma xam-xam yu baax yi di pokkaréwuk alfuqaha way dégg yi fiq te ilmihi ci xam-xamam aw li yumaari wala ngir mu waranteeg ak sufaha way desee di aw li naa la wala ngir mu am aljaaxa daraja indan naa si fa nit ñi ba akon mu dellu binaarin ci sawra waxu te mbiramam moom du iflaasin borom ak perte la wala mu yaari bay di ena zarruq nee na ku wut xam-xam te jublu ci lu may bari xam-xam ba di ko xalantu borom xam-xam yi mbaa bari xam-xam ba di ko waranteeg ñu xamut ñi ñu desee di ñi mbaa ngir rek mu am daraja ci doomu aadama yi kon nee na sawra mooy nekk payam mu daal di perte bu wér waxut da limeef na min aada bi di taallumi ci teg yi ni boroomu xamlu firaaru foo dawum nga min durbi kulli muslimin ci loolu bépp jullit ene bokk na ci teg yi ni booy jàng xam-xam nag ngay moytoo lor benn jullit ndax ku wut lu baax te wóor ku wut lu baax day moytoo lor kenn maanaam ku ko ku wut lu baax moom dañ koy lor muy muy baale ba ko jéggale waaye day moytoo lor kenn rawante na nag loo xam ne moo ko tey ba noppi di ko def nit te wóor ko ne moom moo ko tey waaye lor la ca kooka yu mel noonu la koy moytoo ndax des koy lor muy jéggale ak a dimooyu waaye moom ci boppam day moytoo lor kenn moom waaw da li neef na min xaa ci teggii ni boromu xamu kaw na koo nekkam nga mujtahidan di aji farlu fii faradihi ca farataam ja wa ma ak la nga xam ne xawa laq na te ak kudan ak feddaliko wala yakunte ba mu nekk mu wax xira salaati di aji yeexe julli bi xurima xudurin ci dul ngant xamit awqaati wuy si waxtu ya waaw nee na bokk na ci teggi ni boo dee jàng xam-xam ngay farlu ci julli juróom ak bépp suma bañ feddali nga xam ne na nga moytu wenn waxtu raw la yeexe julli ba waxtu jàll te amoo ngant loolu bàkkaar la ci ñëpp waaye yow mi askanu jëm ci xam-xam moom ak càggante loolu la te war nga am kersa lool ci sàggane ab julli ba mu jàll te julli wu kon na nga farlu ci farata yeeg sunna yi yañ fetleeg yañ fetleeg yëpp wakkaw na xoo ak nekkam wakkaw na xoo nekkam nga ay doon ba tey sax yenn di aji tabe abadan faaw bi xilmihi ci xam-xamam ba ba daa feeñ na mu nekk te addu bi bokk ci teggiinu ba tey nee na bokk na ci teggiinu koy jàng xam-xam loolu xam a kus néew mu tabe ca maanaam bokk na ci teggiini ki nga xam ne mooy jàng mu tabe ci lim xam a kus néew nga xam ne ku ko ca laaj dara lu mu ci xam rek mu daal la koy xamal ngir yàlla ba tey itam ku ko àbb ab téere wala leneen loo xam ne jumtukaay yi wut xam-xam la te mën la caa dimbale mu dimbale la ci ngir yàlla loolu bokk na ci tabe gi ci xam-xamam ak jumtukaay yi xam-xamam te ku mën képp koo xam ne xat doxi la nay na bi ilmihi ci xam-xamam fa innahu naka kookee yóbbu talaa def na ko nattu xabla mawaati ci njëkk dee xëy képp koo xam ne am na xam ba noppi loo bëriwu ci doomi aadama yi xanaa nay ca faaw yàlla teg ko nattu balaa faatu nee nañu sax kilifa gu baax gu ñu wax Abdullahi ibnu Mubarak moo wax lii moo tax sëriñ bee di wax naan wa qaala Abdullahi ibnu Mubarak man baxila bi ilmihi ubtuliya bi ihda salaasin imma an yamuuta fa yadhaba xilmu aw yubtala bi sultaanin jairin aw yansa al xilma allasi xabida waaw daa wax ne koo xam dafa nay ci lam xam a kus néew suñ borom mën na ko nattoo kenn ci yett yi benn mu teel a faatu xam-xam ba daal di sànku wala yàlla nattoo ko burub adduna bu dëng mu sonal ko wala yàlla fàtteloo ko xam-xam ba mu xamoon mu mel ne ku xamatut warut de li nuy fi ne min xaa ci teggin yooyu kaw na ko nekkam nga mu waqiran ci aji fonk lil xil mi ñeel xam-xam bi tax wi ni ca màggal ga lill fi ñeel la nga xam ne xaraa jàng na ko ne bokk na ci teggi ni nga fonk xam-xam ba jumtukaay yi nga xam ne moom nga koy jàngi sax danga koy fonkaale ci biir fonk nga fonk xam-xam day tax jumtukaay yi nga wuti xam-xam bi sax nga fonk ko ci kaw loolu fa lay sa yom dox yi du yàlla la xoo ñeel ko wadduhu kitaabin teg ab téere aw lawxin wala alwa aw waraqat wala aw kayit ala turaa bi ci kaw suuf loolu moo tax na nga moytoo teg ab téere wala allu wala aw kayit ci suuf boo ko fekkee ci suuf sa gaaw ko yëkkati ngir ormal ko waxay tuma ataa te fu mu fi dikkee mënel xalaa yi bàyyi ko ci wanag wa bax da xabaa yi ci gannaaw ko faj aajoom maastin jaayin ànd ak tàncu suma araada topp mu namm almasalaal lil kitaab bi ñeel téere ba ca li wax sil kon na raxas alyadayni yaay loxo ya bistihbaabin ànd ak sopp wala cig sopp aw yatawadda wala mu jàpp suma yaa axul si topp mu door a jël alkitaabu téere ba mu bajj leen mbir muy aji màggal muxtariman te aji ormal yax yi kon mu làq ak tawaaba yooyu ba nee na soo bàyyi ko ci wanaw sax nga xam ne faj nga sa aaya ci wanaw ba raxas sobe sa la taxoon kon sa loxo xëy na set na waaye rek ngir nga ormal li ngay bëgg laal muy àlluwu mbaa aw kayit mbaa ab téere na nga raxasaa say loxo benn raxas bu yees ndax ormal yi ko li ngay bëgg laal soo mënee jàpp sax njàpp maa gën kon yooyu nga doon laal jumtukaay yi ngay jàngi xam-xam muy àlluwu muy téere maanaam naxas tinja in ànd ak tànc ji mu wax tànc wax yin wolof la waaye bu demee ci wana wa sobe si ci sobe si génn ci moom bu fekkee da ko raxasee ndox loolu mooy tudd istinja muy tànc bu fekkee da koo dindee lu bokkut ak ndox niki suuf donj suuf wala ab bant wala morceau sagar ba kayita yooyu loolu moo tudd istijmaar ñu koy firee dawandiku lu ci nekk nag jundikaayu sobe la dañ ko jàngale ci téere fiq yi lu ca nekk nañ koy defee waxul de li neef na mën xaaj te diine kaw waxu nekkam nga muxtariman di aji ormaal li cheyxihi ñeel sëriñam ba wa xaadiman te aji liggéeyal ko mu xaziman te aji màggal ko ne bokk na ci tey diine xamlu ki nga xam ne moo lay jàngal nga di ko fonk di ko liggéeyal di ko màggal ngir yàlla aji ngir xëy na waxees na ne inna inna nafxa man inna nafxa man amul taara boobu da nga koy dindi inna nafxa man naka njëriñal ka nga xam ne taxaw la ma xamlu na nii ta ajeef na ko te ijlaa li siyuuxi ca màggal sëriñ sa aw xulamaa yi ña di xam njëriñul xam-xam ñu ngi ko aj ca màggal borom xam-xam yi waaw ci gàttal daal nee na njëriñul xam-xam ñu ngi ko aj ca màggal borom xam-xam yi nga xam ne nee nañ bu fekkee ne kooku day xamlu te du màggal borom xam-xam yi mën na am xam-xam bu noppi te xam-xam ba du am barke wa min shuruuti moolu nga ne otuxal lu def na lim min shuruuti talabil xilmi ci sarti sàkku xam-xam si tut asiya juróom benn yëf te waddi yooyu danañu àggale li rachid jëm ci jub te na am na juróom benn yëf yoo xam ne ba tey des na ko boole ci sarti kuy sàkku xam-xam te awalu fa aj jëkk seen sabrun mooy muñ xalal jooxi ci xiif alwasati bu digg doomu ka asadin ni ki gaynde bi ci njëkk mooy na ñeneen xiif bu digg doomu xiif bu ëpp moom boo xam ne tax mu tàggoog sagoom ba am xelam gàtt ba xiif ëpp baaxut xiif bu digg doomu rek moo baax maanaam buy lekk daal ba yëg ne lekk na daal di bàyyi ba àgg ci rek te balaa lekkaat xiif loolu doy na loolu su ko defee dana sawar yaramam dana wér kon muñ xiif bu tawoo xiif bu digg doomu boobu lu baax la waxtaani ñaareel bi junni bu ta yal na sori leef la alxalata njuumte ak ñaan leen la ñaareel bi itaalatul jullu si muy yàggal jotaay ba fi taxallumi ci xamri ba kan na sori mel ni am tan bi buti xaa ribal muallimi ànd ak sàkku ngërëmal aji jàngale ja nee na ñaareel bi mooy na nga na nga yàgg fa ngay sàkkoo xam-xam ba ñu am tam di yàggee ci béréb ba muy wutee la mu wut waaw ndax yàggal jotaay bi dana dana bëri na waral loo xamatoon nga xam ko tawante na fa ñuy jàngee dana fekk loo jàngoon nga dégluwaat ko te dégluwaat bi sax daan daa mel ni moo ëpp ma ngay gën a dégg ci doon ci jàng bopp ndax yàggal jotaay bi ca fa ngay xam loo moom war na njëriñ lool toolu sax aj ñetteel seen xiir sun mooy xiir xalaa tala bi ci càkkuteefam te gis ni xiir si kal bi ni ki kenn xiir ab xaj fii matala bi ci càkkuteefam ko ñetteel nee na xam-xam bi nga wut da nga ciy xiri lool la ci am rek xeeb ko bul gaaw a naw la nga ci am li nga xam ne moom la xaj di xiri ca la muy sàkk mu jaral ko lu ne am na nga xam ne la ciy sonni da nga ci xiri noonu sonn ci noonu waaw bi waxaa aji ñeenteel aji ñeenteel seen xel mun mooy lewet te mis leen xew bi ni kenn muus bi ko ñeenteel mooy nga lewet nee sa jëfalanteel bi mel ne muus xam nga muus daanaka yu bari amul njëriñ ci nit ñi ci kër yi waaye séenug muus maanaam séenug neex ànd ak séenu yooyu te tax na dañu leen yar ni ñu yara nit ñi di leen tibal añ ak reer te defaluñ dara kooka waaye rek loolu séenug leer ak séenug mën a jëflante loolu baax na ci ko wut xam-xam xaami sufa ak juróomeel seen idaamatul mooy saxal li sabri ñeel muñ xam xam ni nisaay walis jigéen ña assaarifaati li ximami ñu di wëlbati ay yitte ka sabri xin siiri nit mu jub mbaam xuux bila taxamumin ci lu yittewoo bila taxamumin di ko juróomeel mooy nee na mën a muñ bànneexu jigéen li nga xam ne moom la ko mbaam xuux mën a muñee maanaam bu yàkkamtee takk wax ne sama doomi baay ja wala sama doomi nijaay ja du ma raw wala mën na koo daal di yàqal la mu doon def day may yàkkamte rek xam ne loolu moom du wéy sax ci la mu nekk rek ba keroog am la mu wut saa di soxa ak juróom-benneel ak juróom-benneel seen sabrum mooy muñ xanaa jullin ci toroxte abadan faaw sabra ximaarin kenn muñu mbaam di ko juróom-benneel mooy mu nangu toroxte maanaam bu mu taamu ne nangam laa war a sol nangam laa war a lekk bërëb sàngam laa war a dëkk déedéet lu am ci lekk rek baax na lu mu am ci lu ñu sol rek baax na lépp ñu xeetu toroxte ni mbaam nangoo toroxte ni mbaam ni mbaam nangoo toroxte rek waaw na mën a muñu noonu moom itam toroxte la koy dal ci biir sàkku xam-xam gi fàttali boo na ngeen sàkku bi fii ci yile arrachada njub ga maanaam juróom-benn yi mu wax ci la ñuy wute xam-xam ci la ñuy wute lu baax te wa haadihi shuruut yi leen sart laa tuxassalu deefu leen amal illaa bi kaddin dara ci ab coono ijtihaad ak ak farlu yaxsulu ba dana am waaye noonu yi nag moom faaw nga góorgóorlu bu baax door koo mën bu fekkee góorgóorlu góorgóorlu bu baax te bëreeg sa bakkan doo ko mën ruumoo na ngeen sàkku jihaad a nafsi jihaad ak bakkan yaa ixwaan yéen mbokk yi fa la ko moo ñeel na leen bi ci jihaad jooju aljinaanu ajana ya xadan ci al